arrière arrière bu dugg arrière arrière bu dugg tap tap rek dina da nga amal ak ñu fi dëkk Tudo bem, mira. Hadi

Come, come. Allez, allez, allez, soo bëggee dégg dëgg ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci Mermoz ba tey ci côté des médias rek Lamine laa taxawal waaye bala ma ñëw si moom ak ni ko wel maa def nii damay jëkke ci pël li mu bula blanc pël li ngay solu. xam sama bula blanc bi. comme Equivox bi ci loo ne. sant rek. temps yi làmb jax na de. neex lool. nga ne li bëri na. waaw ki la solal waaw. kii présenté na wellement yow nga présenté kan. Omar Tawa. tey loolu man Moustapha faa Kandji Socé. tey xanaa Saalum la dëkk. waaw man Darame. eh du sa Darame de. <laughs> ni mu jaxe fan yii noo ko gisee. ko ko ah, lii la doon xaar làmb jax ñu lii lañ xam de. yow gisoo bi làmb tëjee da ngaa feebar nagam. non li nga doon feebar garaaw na de. waaw fan yooyu da ngaa jeex tàkk. kenn xamul ne la pël ngay mël foofu rek. <laughs> kurus say ji. Eh, say maa ngi ci ba ci kurus ga sax. dara changé woon waaye man kay nanga nga jeexe woon a daj. waaw parce que boobu dama doon dama doon gelu làmb ji. jëlaat nga sa doos. yàgg na. mais tey Ama Baldé Modou Lo nii mu mel coow li mbooloo mi ba mu mujjee ñu mujj ko annulé. ah mënut a ñàkk nag ñaari ndaanaan lañ te ñaari ndaanaan bu ñu dajee. xam nga ne du yomb. te dañoo bëri mbooloo bëri ginnaaw mm-hmm. yow combat bi da ngay xool ba taxee ba tey coow li dafa bëri Babacar corona bi li muy yàgg yàgg yàgg Ama Baldé Modou Lo kenn fàttewu ko yeneen combat daa mel ni sa amut man loolu tamit jaaxal na ma da jaaxal la la mel. bal koy gaaruwaale <laughs> gaaruwaale ma kenn mm. damaa dégg amaa bal Modou Lo rek ngay dégg réew mi daa mel ni combat amu fi woon te pourtant amoon na combat yi mag yi fi am mais Ama Baldé Modou Lo mais nag am nga gars yi ñoo bokkul gars yi bokkul ak tëggkat yi bokkuñ. ah yi. waaw bokkuñ. ni ko lay de daa xaw a doy waar. inko kenn day moom. bàyyi liwi <laughs> ko kenn moom nee naa la lum laala gën lum laalut yàlla na jàmmam yàgg. Mhm. mais man xa mais xanaa xanaa nam nga nag Modou loo toog nii Ama toog nii ñu waxtaan. loolu mënut a ñàkk Babacar te day am. dina am dañuy ne runkum daje. comme ni ko père di waxee dañuy ne runkum loolu kenn mënu ci dara te nag dinaa la xamal dara ay surprise day am ay face to face yu doy waar dafay am lii lancement la rek xam nga ne coow li faaw mu bëri waaye xam nga ne ñaar ñii faaw li toog ci diggante bi ñu wax aha Lamine nee ca wet ga Babacar toog nee buur géwél toog nee na bàyyi ma ma seetaan maa kay man kay Lamine itam c'est que Lamine nag mook wel maa ni ñuy defante kay da xeex. man ko tax neexu ma dara. la saa neex xaw ba may mandi mandi gu métti. waaw bii kay giri kaña la. waaw giri kaña la. giri kaña la. xaaral ma gën a baraaye. welma welma borom boulangerie zone welma nag xanaa man kos dafa maa jàppul ma man ni ma gàtt ni. waaw dana la jox kii bi veste bi kese nga boole ko. waxal ak moom waaye itam nag. seex nga nag yow it. loolu kay jeex na tàkk. Momadou welma. maa koy jënd sax jox la ko. ndax ndax nag kaam wax la de. ay lunette a ngi nii jëlal dama koy takk sax ndax seeraay ba mu seer te yaa ma ko jox voilà wax day am si dëgg day tungom seerem weer yii seer la def Lamine ma ko jox dem Gambia jëndal ma fa pël suukar soo xam ne ba tey te nga ngay suukar suukar sa manta jeex Lamine a def loolu ak yeneen yoo xam ne bu ma ko waxee sa ñu ne xam naa leneen ak leneen la moo tax yàlla na sa jàmm yàgg de maa ngi lay ñaanal de barke alxuraan maa ngi lay ñaanal. yàlla na yàlla nangu yëpp ñun ñu bokk incha allah. parce que nag mais li ko jàngat. neex rek la def. mënoon na gën a neex nag moom bu ñaari mbëri jàkkaarloo woon mais tamit lii la lii moo yokk coow combat bi foo xam loolu lii moo yokk coow combat bi mhm. ci Ama Baldé Modou Lô seen runkum daje seen runkum daje soog dañuy daje ah. waaw ndax man gëm naa ne moom Modou Lô du arrière at Ama Baldé te gëm nga ne Ama day ñëw ba laa ilaha illallah bu ñu yokkoon bu ñu yokkoon géew bi waaw arène nationale fii bu commencé ba fële foofu Modou Lo nekk Ama dana ko fekk moom. Hmm. maa la ko wax. mais est-ce que xaj na arène nationale tamit Lamine. mosu faa xaj. man loolu xalaat jar naa wax. xaju fa de. est-ce que kon duñu ubbi Léopold Senghor. foog ñu ubbi leen ko nag Léopold comme ko bàyyi fee kañe yi dafa dafa dafa yendu. waaw nañ leen bàyyi nañ ñu bëri fa. Uh-huh. waaw comme ñi ngi tabax stade bu bees. nañ defar bu Thiès ba. dem ba côté Loor defar fa benn. defar fa benn. waaw. dem Kaolack defar fa. waaw foog ñu defar kay Ndiaye fa. bu ñu bëggee gagné. dem Passy ci compétition yi bu ñu bëggee di gagné. il investir xaalis bu bari. ci ay waaw defar ay stade yu bari. Mhm. école de football ñu ciy jàpp. Mhm. pour ñuy gagné. waaw. lamb jaak football baak volley baak handball baak. lamb ji daal Babacar neex na. ana borom Thiès waaw ana Mama Lamine. Mama Lamine mu lamsaar. gis naa ko mu dugg ci avion de xam nga jëm. laay lay lay avance Vox de la yor. fu mu aw. waaw gis naa ko de. moo gargade waaye lu tam lu doy waar a ngoon. naxaar gargade tamit daa mel ni dégg naa ci wéewu bay ñu ne moom tamit mi ngi waaj a dagg biyee. jëy seen runkum daje ñoom ñaar ñoom tamit. <laughs> def nañ mbir de. bu rëy mbir mu rëy combat boobu. waaw. ma wax ci mu bind ko. ndaay tax. waaw.

commande Sénégal nag lii lañ namoon lii lañ namoon ci làmb ndeysaan gis ngeen supporters yi ñu ngi topp ci ginnaaw ki nga xam ne rek moo di seen mbër di Ama Baldé mi ngi noonu ci oto bi mi ngi noonu ci oto bi di dem mi ngi noonu ci oto bi ñu ngi sànni nag lim ngi sànni xorom xorom la ñuy tur actuellement nii. xam nga nag yàgg maar mbër moom xorom da caa baax moo tax xorom la ñuy sotti fi mu nekk nii ñu ngi ama boo soxul xorom nag tey dina ma ndeysaan sama waa ji Babacar mu ca biir di lijjante ma féetee ko fii moo taxoon temps yi xol yi neexuñ woon ñuy xeex ak manifesté wu lii lañ namoon ndeysaan lii mooy làmb tey waaw man en tant que secrétaire général euh, man ma ñëwoon tey rek accompagner ak tout le staff ainsi que les entraîneurs mais ba ñëwee nag dañ ne euh, xamoon nañu message bi que ne quatre personnes ñooy dugg mais dugg nañu nag ba quatre personnes yu duggee ñun dañuy toog accompagner toog xaar suñu athlète mu génn ñu dem voilà on a fait le choix nag en interne ñu war a moom. ñu ah bi métti na de. ah dugub bi métti na dugub bi. waaw parce que boo xoolee. fu dëkk bi toll nii ak contexte bi ñu toll contexte Covid bi ma waral léegi dañuy limiter ñi ñuy jël waaw mais nag euh, ñun on était informé sur cela ba jël na suñu disposition ba ñëwee fi ñun on avait dressé une liste ñu war a dugg ñëpp waaw. voilà mais ndax waajal ngeen seen mbër. waaw suñu mbër moom waajal nañ ko moom mooy waay xam nga Ama dafa neex a jaay bu neex la dafa mooy waajal boppam Ama Baldé moom mooy waajal boppam moom ñëpp xam nañ ne Ama dafa nekk euh, mbër boo xam ne dafa mën bis macha allah dafa mën bis te du tardel kenn. te moom euh, dafa nekk mbër moo xam ne da ko ñaax ci en sport ci entraînement fonk na entraînement am na respect ci li bëgg ndax li muy def lamb ji kenn gën ko koo bëgg moo gën a bëgg lamb ji ñëpp lamb ji nii mu loolu nag xam ne ama gën a bëgg ñëpp lamb ji lamb gi lambu ama moom yow ma xam lool daal mbir daan ñibbi la. nga ne bëree daan ñibbi waaw waaw loolu kese la ñu amuñu beneen moo door moo door lool loolu la bëree daan ñibbi rek waaw merci beaucoup. ba waaw man la Aliou yee Aliou Mané waaw loolu dafa leer. Aliou waaw nekk équipe Falaye Balde. tey na ngeen indee le fils de Falaye Balde bi nga xam ne mooy selu bu ndaw Ama Balde. waaw mais ginnaaw bi ñu sant yàlla dañuy julli si yonent bi di tallal adduna yëpp loxo di ñaanal ñaari camp yëpp parcelle Pikine non violence quoi loolu la ñaan jàmm ndax ñaari mbir bi ñu amee jàmm rek askan bi dañuy am jàmm quoi Ama ak Modou Lo kii moo mag kii magul yëpp mais ay adversaire lañ. di leen ñaanal ñoom ñaan ñëpp ñu am wér ñu am wér ama am wér Modou Lo am wér mais ñun nag am nañ sañ-sañ woote ak ñaan ñaan bi mooy lan dañuy tàllal àdduna loxo ñu ñaanal ñu pour ñu am ndam ci kaw Modou beneen bi di tàllal Pikine Pikine yëpp pikin waa yëpp cat cat ñoo ngi leen di woo si combat bi seen doom moo xewle seen rakk seen sët ñii seen jarbaat ñoo ngi sàkku ñaan nag ñu ñaanal ñu pour ñu am ndam si kaw Modou ñu loolu la ñuy ñaan premier pas boobu la boobu la ñuy teg. lan ngay diggal sa rax. non lay waajalee combat bi. bii waaj waaj bi day day gën a yokk incha allah si kàttanu yàlla. séance d'entraînement yi mu neen xam ñaata. non de dina yokku bu bu nekkee quatre sax dañuy jël xam nga séance d'entraînement yi trois séances la da yeewu fajar soo jugee fajar midi yaa ngi musculation ngoon contact. mais bii bi bu aajaw bu aajaw quatre séances sax dañ koy def ci kàttanu yàlla. mais am ngeen waaw ah. mais Modou Lo est ah, am combat waaw. Ama Baldé moo mën Modou Lo sept fois maanaam sept Modou Lo Ama Baldé moo mën excès de confiance la non xam nga tey loolu yëpp si ay communication mbër la maa mun kii sept fois wala maa mun kii dix fois mais ñoom ñaar ñooy dugg si géew bi te moom am na sañ-sañ pour jàpp ko duma ko daan. te incha allah si kàttan yàlla noonu lay demee xam nga am dafa ne ay mafia bu ku si bokkul xiir da lay dal mais bii du ma du ko jox ay xiir bii ay mbol da laa koy jox. ah jotoon ngeen laale Mbapat de en 2006. Modou Xarañ Lo dafa déggoo lu ma lay wax moom magam Modou Lo magam maa ko duma daan métrage boo xoolee si vidéo mu mujjee def moom la defak Malick métrage. Malick Diop Malick. billaahi wallaahi tallaahi Modou Lo lu mu baax ñu ñeer ko. tous les plans xeex ñu xeex ak moom bëre ñu bëre ak moom lépp ñun ñun pare nañ donc loolu ñun ñun benn affaire la ñuy benn affaire la ñuy ñaan rek. kan. Ama daa yor ko Ama waaw yow. yow xool nga Ama yow. Ah, man kan mooy nekk ak man doo entraîné. non déggoo ma nag man kan mooy nekk ak man doo entraîné. man mbër mbër Pikine yëpp dama dama nekk ak ñoom samay mag lañ Tyson sama kilifa la Eumeu Sène sama kilifa la maa nekk seen rak kii nak sama rak la dëggal ma états laa jugee billaahi wallaahi tallaahi pour combat bi te ama day am ndam ñun ragaluñ loolu xam nga tey mooy li ma na xale xale day capturer ay image xale day capturer ay image ama Tyson mooy magam ama Baboy mooy magam ama Eumeu Sène mooy magam te ñoo ñëpp dañoo dugal roi des arènes Pikine kon léegi nu muy demee non confirmation déggul ma lay wax ñaari roi des arènes ñoo dugg Pikine muy Tyson muy Eumeu Sène kon troisième fois bi yaa ma gën a xam waaw yow loolu ma leer <laughs> loolu loolu maaleykum salaam <laughs> maa ngi leen di tey sa tànk ah samay tànk xanaa ñëw ci li leen fi indi rek muy xew-xew bu mag bi sama mbokku taalibe bi fas yéene tëgg ci Ndakaaru mi sëñ Fallou Nicolas yu bokk tedd gi invité ma tey nag ci bés bi yi nga xamante ne nii xale yi dañuy daje tey pour jàkkaarloo pour ma ñëw bégal leen ci kàttanu yàlla. macha allah tey du yomb ne kon. <laughs> du masa yomb. làmb <laughs> ji làmb ji tamit noo ko gisee. làmb ji moom yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm ba lim ci yéen lépp yàlla may ko ko ci dara yonent bi sallallahu alayhi barke Seexul Xadim. waaw sañse nga. ay yoon laa ko tuddee xam nga rek Fatou Guewel moom seen Fatou Guewel sant rek. nee may ñu ko waay. dugal dugal Yàgg maar ñu ngi woon fi nga xam ne moo doon seen TV jàkkaarloo Modou Lo Ama Baldé la ñu bëggoon muy loo xam ne monde we koy xaar kii ñu jàkkaar loolu nag defe naa ne mooy doomu Luc Nicolaï di Willy Luc Nicolaï Willy tey di am fii Sen TV noo ko jàngate en tant que koo xam ne yaa di doomu Luc mais bokk ci siricture bi ñuy wax Luc Nicolaï en ko waaw avant tout Babacar damay sant yàlla bu baax di nuyu sénégalais yëpp di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou mbake Mbacke sant samay ñaari waajur di nuyu sénégalais yëpp kilifa diine kilifa aada képp ku mu mën a doon képp koo xam ne yaa ngi xool vidéo bi bon li nga ma laaj nag eh, li ma ci am pour wax bëriwul ndax boo xoolee paa bi wax na lépp li ma ciy wax mooy santaat yàlla ndax tey jii nii boo xoolee image yi xool li am fii tey da ngay xamante ne ni am na lu nar a xew. te te mooy li ñuy wax rek li olof Njaay di wax. cin bu naree neex su baxee xeeñ. kon gars yi nag nañ sooraale combat bi te xam ne lii mm. du combat wu caaxaan. waaw loolu moom moo waral lii yëpp moom moo waral mbër yu jàkkaarloo ñu donc dañuy santaat yàlla di xam le ne am na yeneen rendez-vous ñuy waajal te ñu ngi jub si koor di ñaanal Sénégalais yëpp am jàmm jàmm yàgg si réew mi xam nga problème yi fi amoon yëpp bañ fee amati waaw ñu dal jàmm daal loolu laay ñaanal sénégalais yëpp. mu mel ni tey daa mel ni Luc Nicolaï tamit lu mel nii euh, lii tax ngeen annulé sax bés bi laay wax mooy sécurité nit ñi parce que da ngeen ba gis ne mbooloo mi fii wóoratul amatul sécurité tey itam sécurité nit ñi moo ëpp lépp. waaw booy xool Babacar yow sa bopp yaa ko tegal sa bopp bët gis nga li fi nekkoon ci mbooloo ak li fi newoon ci nit dañoo dem ba sax bi ak policiers yi ak so ak euh, force de l'ordre yi fi nekk mënatuñ leen mënatuñ leen a contenir. loolu tax ñu ne pa bi bu mu xoolee ak staff bi ak lépp bu ñu waxtaanee ñu ne nañ annuler nga xam ne nañ prévoir benn journée boo xamante ne bu mag lay doon sénégalais yi mën a am face to face bu baax waaw ñëpp am sécurité face to bi am ci jàmm jeex ci jàmm kenn du am problème ñun loolu moo ñu soxal bëgguñu kenn am problème waaw ñu kenn am problème moo tax ñoo annulé Ama loo di wax Modou Lo ak Ama dama leen di wax gàcce ngaalaama di leen wax ne ñu préparé bu baax te bu ñu bàyyi dara mu sedd ah, déedéet ndax ko gën a tàng combat caaxaan de lii yàlla am fi tey tàng na de wili waaw lii nar a am mooy nar a gën a tàng incha allah mais waa Kër lan moo tax ñu lu tàng ah, loolu de laaj yàlla loolu ñun moom wax seeni mbir itam macha allah waaw mbirum yàlla rek yàlla moom waaw ñun ñi ngi sant yàlla bu baax daal waaw di santaat sëñ Fallou bu baax a baax a baax Serigne sëñ Abdou Karim Mbacke bi nga xam ne daf ñuy ñaanal te ñu fàttee waaw mooy li may wax rek mbiru Luc Nicolaï waaw loolu daal yàllaa ko def nañ ko nangoo noonu rek xam nga waaw ku xool archive yi xool combat yi jot a jàll du jar ñuy wax daal. des grands événements. wax bu bëri bi day yàq. waaw jaajëf la. rendez-vous ba ci kanam. waaw ci kanam kanam incha allah jaajëf Babacar. kookooy wili. koy tëjee ak kan Omar Tawa Omar yow na sa jàmm yàgg parce que li tax mu Omar Tawa jàmmam war a yàgg mooy yàgg jëral yaa tey jëral euh, ko ba ci suuf. doomu ndeyu Saliou xule saaliw Khoule ku ne xam na ne Zik FM gii ñu ngi taxaw ci sunu ginnaaw fi lay animé moom mooy meilleur animateur saaliw xule mu sëñ Seydou Khoule mu sëñ saaliw saaliw Khoule animateur bu mag bi moo tax ma xam Omar Tawa pël bu rafet ku tax nga gën koo gënul woon boo goree ne ko jërëjëf Saliou ma booleeg Omar Omar di ma defal lu baax lii Tawa xoolal bii tisi ak bii ñaaw ak yii bouton lii loo ciy waxati lamin jox ma ay verre kon daraame kanji soose kenn du yow tamit ci pël waaye welma kenn du yow waaye nanuy fàttalekul sunu caméraman yi parce que du nu solu de te ñu ngi li seetaan rek yàgg maar simis rek lay sol hélas noonu xulle noonu kon gars yi Lamine ami hélas hélas loo wax parce que présentateur daa mel dañ leen di fàtte rek <laughs> ami Diouf non déedéet yow itam yow it da ngay présentatrice tey nga ñëwoon fii ci làmb ah. defe naa tey nga mës a dund lu mel nii. Babacar maa ngi maa maa ngi doog a ñëw tey làmb. waaw yaa ngi doog a ñëw li ma dund métti na lacrymogène bi ma nooyi tey Babacar mosuma ko nooyi. kon ñi ma nga ah kon kon léegi da ngay dëpp dootoo ma topp dem ci làmb. ah si dama koy gisoo ay talon laa defoon mais ay corax laa mujjee de. Eh, xam nga ne bala ngaa lekk lacrymogène yi am na loo jot a lekk ci ngoon te làmb la ko. waaw am na am hôtel bu rëy boo duggoon tey. dëgg la dëgg la làmb lépp a ngi ci. lépp a neex na waaye tamit bu bu <laughs> naqari bi ñëwee tamit ñu dund ko rek. kaani gi ñëwee nga. <laughs> la kontaan ci yow. waaw merci Babacar. na sa jàmm yàlla amiin borom baax nga. jaajëf borom kay nga ma rek. <laughs> kon face to face bi noonu la demee woon ci biir Sen TV la waroon amee li tax nag ñu annulé ko mooy mbooloo mi fi egsi woon ëpp na place bi xaju fi looloo tax nag léegi Nicolas xam na ne lii mënta dem mu ne kon na ko fi yemale ba beneen yoon ñu programme mbëri ci beneen façon kon léegi tamit jaaraama rek lañ koy wax yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko kull kuy promoteur parce que nag Sénégal ñoo ko bokk nañ bokk ndey bokk bàyyi réew mi loolu la laaj. amaa nag yàgg Moodu coow lay bari rek wax naa ko bu dee da ngeen a dëgër bopp. lu ci mën a xew jàpp leen ne di ngeen jàkkaarloo te di ngeen bëre lig moom bu soobee suñu borom arbitre dana soufflé moo xam Malick Ngom la wala Sitor wala Babacar wala Mathia arbitre soufflé yàgg maar ñoom ñaar génn seen diggante ñu daje xeex bëre kii daan daan yàlla na jàmm yàgg waaye yàgg maar kenn du yow compagnon de guerre laa la tuddee yow.